salaamaaleykum mbokk yéen di samedi 21 janvier 2023 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi waaye laata loolee kuy gën ci page bi te ñoo ngi lay ñaan nga abonné bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugal rek di bokk ci koy njëkk jot revue de presse bi Serigne Fall moo leen koy may. asalaamaaleykum mbokk yi jaaxle jeex na kan la ñu ne Serigne Fall ay loolu si mbirum seet dina la wax ba wax la lu ñëwagul ay loolu tamit si wàllum faj dinay faj li ngeen xam ni moo di hémorroïde jigéen ju munta am doom góor gu tëlee dinay def ay ñaan pour ubbeeku. kaaraange wàllum këyit ngi basé Dakar ak Saloum képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak moom da ngay woote si numéro bii di 77 259 22 92 ma bamtuwaat ko 77 259 22 92 jërë ngeen jëf. ñu door revue de presse bi dooree stade di yéeneekaay équipe nationale bi le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa décisif li leen war du lenn lu dul xarañ dugal am ndam ci kanamu RD Congo suba décisif nag bu ñu ko doon tekki moo di nga teg bal ñu ne la bal bii kat boo ko dugalee rek qualifié nga waaye boo ko dugalul ñàkk nga match boobee kon Sénégal li leen war moo di jëmbat fulla suba bu ñuy jàkkaarloo ak RD Congo am ndam ngir mën a dem ca ñaareelu segg ba match boobee nag 19 heures lay door waaye journal bi nee na ñoo ngi xaar ci onze bi nag ay coppite maanaam onze bi nga xam ne moo doon football fan yii coppite dina ca am Pape Bouna caw mi leen di tàggat nag mi ngi wax nee na coppite yooyee ñun li ñu bëgg moo di teg onze bi man ngir ñu am ndam match boobu nag suba la bu 19 heures jotee équipe nationale loko bu Sénégal mooy jàkkaarloo ak RD kongo mu soxal CHAN bi kii wax ca match boobee nag moo di Yaali Fall mi nga xam ne atum 2009 ànd na ak équipe national loko bi dem ba demi final ca CHAN ba mooy wax nee na équipe national suba li ko war moo di mu football match boobee ak xel mu dal ànd ca nag ak muus lool suñu ko defee rek mën nañoo am ndam ci kaw RD Congo kon nañu ñaanal équipe nationale bi mu am ndam journal bi tamit ñëw na ci choc bi ñuy xaar tey jii ca Angleterre di dox ci diggante Chelsea ak Liverpool Mohamed Salah mooy jàkkaarloo ak Kalidou Koulibaly midi demi la match boobee di door waaye suba tamit ñoo ngi xaar match bu nar a neex wara dox ci diggante Arsenal ak mën Manchester United match boobee suba quatre heures et demi lay door Arsenal mooy dalal Manchester United ànd ak Erik Niak ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay équipe nationale loko bi la fësal ca xët wu njëkk wa daf leen di artu nag ne leen moytu leen li leen daloon ci atum 2011 dal leen ndax at moomeekat équipe nationale loko bi ca Soudan la ñu demoon poule ba ñu bokkoon nag dañoo door mbir mi doorin bi gën maanaam dañoo door am ndam waaye seenu poule génnuñu ca woon moo tax journal bi di leen artu ne leen jëmbat leen fulla suba ngeen am ndam seen diggante ak RD ngir mën a dem ca deuxième tour ba kon équipe nationale loko bi ànd ak Pape Bouna Thiaw li leen war suba moo di jëmbat fulla waaye gone gii di attaquant ca Casa Sport di Raymond Jéema Ndour moom du bokk ca match boobee saanam jeex na li ko waral moo di blessure même su équipe nationale bi qualifié dem ca deuxième tour ba Raymond Jéema Ndour moom du ca mën a bokk li ko waral moo di ab blessure kon nañu ko ñaanal mu wér muy attaquant Casa Sport bi booy ñaan numéro 2 8 mi ngi ci journal bi kiy wax ci moom nag moo di papam di De nee na doomam noppi na ngir jàkkaarloo ak Modou xarañ loo bu jotee avance Modou Lo dina ko jël baayu booy Niang di dogol moo yëkkati kàddu yooyu. ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe génn du si le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa démb nag moo boot waa Marseille ànd ak ñoom doxal ca Vélodrome reen la ñu doon jàkkaarlool mu soxaloon seizième de finale coupe de France Marseille nag moo am ndam ca match boobe dóor ko benn bal ci dara doomu France bi di génn si moo dugal bit ba am ca match ba jamono jii nag Marseille li ñu bëgg moo di jël Coupe de France bi nga xam ne gej nañu koo jël lu ci toll ci trente-quatre ans fanweer ak ñeenti at yoo xam ne Marseille jëlul Coupe de France li ñu bëgg ren ji moo di jël ko te ñoo ngi koy wane ndax kat fulla ju mat sëkk la ñu ca boole bu ñuy football dañuy tànn gone yu man football leen kon li ñu bëgg moo di jël ko Skriniar it mi ngi ci journal bi moom nag défenseur la ca Inter journal bi nee na tànn na Paris ndax défenseur bi kat jubawul ak club bii ñu naan Inter ngir yokk contraam Paris la bëgg a ñëw te gone gi ak waa Paris jubóo nañu ci lépp bu kontraam jeexee tàkk day jugee ca Série A ba ñëw ca Ligue 1 ba doxal loolu la journal bi xamle. ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Mikel Arteta ak ganam gi di Leandro Trossard la sournal bi fësal ca xët wu njëkk wa. Arsenal suba mën sa Manchester United lay jàkkaar lool waaye gone Mikel Arteta yi ànd ak Arteta li ñu bëgg moo di def lu ñu mësul def ci histoire Arsenal ndax diggante ak Manchester United dinañu am cinquante poñ loolee nag ba Arsenal soso ak tey jii mosu koo def football dix-neuf match am cinquante poñ suba li ñu bëgg moo di def ko mu nekk yoon bu njëkk ànd ak seen gone gii di Trossard mi nga xam ne xaatim na contrat démb ca Brighton la nekkoon waaye gone gi jamono ji ci ndigalu Mikel Arteta lay wéy nekk gone gu mën la muy def kon jamono ji waa Arsenal noppi nañu ngir jàkkaarloo ak Manchester United suba la bu quatre heures et demi ak waa mën si City tamit ñoo ngi ci surnal bi ñoom suba Wolverhampton la ñuy jàkkaar lool match boobee 14h lay door waaye Pep Guardiola mi ngi artu gone yi nee na leen nag jamono ji jëmbatu leen fulla man sax dama tiit ndax gone yama xamoon xàmmeetuma leen xiifatuñu ndam comme ni ñu ko daan xiifee jamono jii gone yi bu ñu duggee ci terrain bi du ñu jëmbat fulla mi ngi leen di ñaax nag ne leen mbir mi jeexagut nañu gëm suñu bopp jëmbat fulla ni ñu doon bëggee ndam bu njëkk nañu wëy di bëggee noonu ndam lu ko moy rek làmbaay mën na ñaaw Pep la moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa marka yéeneekaay Mikel Arteta la journal bi fësal ca wu njëkk wa buum espagnol jamono ji nag Premier League ba doomu Espagne yi ñoo fay lëmbee ndax ka nekk ca bopp classement ba doomu Espagne la muy Mikel Arteta moom moo jël pee rawee deuxième bi di cinq poñ di waa mën sa City te mën sa City googee ki koy tàggat doomu Espagne la muy Pep Guardiola Unai Emery mi nga xam ne miin na Premier League boobee jógee woon fa tamit dellu si waat na fa Julian ji nag moom gan la ca Premier League ba kon jamono ji doomu Espagne yi ñooy lëmbee ca Premier ba loolu la journal bi xam xamle Memphis pas it mi ngi ci journal bi démb la ñu ko xaatimal contrat ca Atlético de Madrid officialisé ko ba noppi présenté ko jox ko numéro neuf moom lay boot di doxal ca Wanda journal bi nee na neuf bi ñu nangu woon ci moom ca Barcelone jox ko Robert Lewandowski moom la ñu ko gàcci ca Atlético de Madrid loolu nag sas wu la loolu la journal bi xam xamle ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Daniel Alves di doomu Brésil daan football ca Barcelone la journal bi fësal ca njëkk wa ma nga ca prison ba li ko waral moo di dafa am xale bu jigéen bu am ñaar fukk ak ñetti at bu ko jiiñ ne ko da koo tëddee te loolee neexu ko loolu nag taxoon na xale bu jigéen bi porté ko plainte bi ñu ko woowee nag déglu ko ña ko doon déglu liñ ko xamal moo di ni ñu la gisee ak ni nga waxee rek mbir moo moomee yaa ko def te amul caution amul dara dañ lay denc ci kaso bi maanaam amul neexal xaalis génn dañ lay denc ci kaso bi jamono jii ma nga ca ndungu muy Alves te nag surnal bi nee na mën naa dem ba fukki at ak ñaar mu tëdd ci kaso bi muy Daniel Alves waa Real de Madrid ak Atlético de Madrid tamit ñoo ngi ci journal bi xam ngeen ne coupe du roi bi ñoo ngi koy football Atlético ak Real de Madrid nag ñooy jàkkaarloo ca quart de finale ya surnal bi nee na nag benn match képp la dóor mu toog te loolee nag Real ak Atlético mosuñu caa tase élimination directe ñaari club yi mosuñu caa jàkkaarloo dinañu jàkkaarloo nag ca Santiago Bernabéu loolu la journal bi xam le Memphis Depay it mi ngi ci journal bii di AS yéenekaay nee na ñëwam ca Atlético de Madrid nag li ko waral moo di Antoine Griezmann moo ko wax wax ju baax ca Atlético loolu moo tax mu takk ay am jugee ca Barcelone ñëw ngi jàppale Diego Simeone. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport Daniel Alves le journal bi fësal ca xët njëkk wa doomu Brésil bi ma nga ca ndungu sin loolu la journal bi xamle li ko waral moo di dañ ko jiiñ viol. viol nag moo di tëddee jigéen te neexu ko maanaam nga forcé ko ndax xale bu jigéen bi nee na dañoo tese ci boîte de nuit bi Daniel Alves. fekk ko ca duus ba forcé ko daal di tëdd ak moom waaye Alves li xale bu jigéen bi wax da koo weddi ndax xale bu jigéen bi nee na mbéj na ma def na ma lu nekk waaye Alves dafa weddi loolu. waaye taxul ba léegi nag àttekat yi gëm Alves li ñu jël comme ndogal moo di dañ koy denc ci kaso bi amul caution amul dara denc nañu ko ca kasoy Barcelone ya muy Daniel Alves nekkoon latéral ca Barcelone doxal tamit ca réewam di Brésil jamono ji nag mi ngi ci loxo yoon Hakim Ziyech it mi ngi ci journal bi moom nag jox na boppam waa Barcelone nee na noppi na ngir dem ca Barcelone kon mbir mi jamono ji ci waa Barcelone la dese ak waa Chelsea Barcelone bu jéemee tuuti rek mën naa am doomu Maroc bi loolu la journal bi xam le ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Xavi ak équipe am la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Xavi nag liggéeyam baax na ca Barcelone waaye ñii ngeen gis ci photo bi ñoo ko waral ndax ñii ñëpp kat ku ci sa tànk nekkul sa loxo ngi ci wala sa xalaat ndax équipe bi ngeen di gis ñoo ànd ak Xavi ci liggéey bi Xavi moo siiw moom la ñuy gis waaye ñii nag ñoo koy jàppale maanaam ñoom la ànd ak ci liggéey bi moo xam équipe technique bi ba ca ñi nga xamante ni ñooy toppatoo wàllu lekk gi ak gone yi bu ñu futbalee ba sonn ñi nga xam ne ñoo leen di bës ñoo ñooñee ñëpp ci équipe bi la ñu bokk moo tax journal bi nee na l'équipe de Xavi liggéey bi bu rafetee gone yi di doxal ñoo xamle waaye journal bi tamit ñëw na ci quart de finale coupe du roi bi Barcelone ak Real de Madrid xam nañu kenn ku ne ci ñoom ki ngay am Barcelone mooy dalal Real Sociedad ca Camp Nou Sportivo bu dee waa Real de Madrid ñooy dalal Atlético de Madrid ca Santiago Bernabéu. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve le journal bi fësal ca xët njëkk wa jamono jii nag club boobee ñoo ngi ci ay jafe-jafe moo tax journal bi nee na goudronné Juve nag teg nañu leen ay daan ginnaaw bi ñu ubbee ay lanket ca club boobee li ko waraloon moo di ña nekkoon ca club ba muy président bi ak ñamu àndaloon ñëpp dañoo démissionné woon démb nag la ñu leen doon atte waaye mbuxum ya bari na lool mën nañu caa lim bi gën a fës moo di lan jënd ab jour comme tey jii nga jënd jour vingt millions d'euros déclaré ne man dix millions d'euros laa ko jëndee loolu waa UEFA dañu koy bañ te loole yuufe li mu ci def bari na lool moo tax jamono jii ka fa nekkoon président di Andrea Agnelli aj nañu ko ñaari at yoo xam ne du dugg ci stade club bi mu yoroon ca jamono joojee di yuufe nag club boobee gaañ nangu nañu ci moom fukk ak juróomi poñ maanaam quinze poñ yuufe moo nekkoon troisième ca Serie A ba waaye jamono ji nag ca fukkeelu place ba maanaam dixième place ba fa ñu nekk kon yuufe soo moytuwul du dem Ligue des champions déwén wala Ligue Europa daan yi mitti lool te jeexagul loolu la journal bi xamle ndax ñoo ngi càmbaraat mbir mi tey jii nag ca Italie Salernitana bu Boulaye ja bu 17h jotee ñooy dalal Napoli waa Napoli ànd ak Spalletti mi leen di tàggat seen gone gii di Kvaratskhelia du bokk ca match boobee waaye Spalletti mi ngi wax nee na tey la gën a xiif ndam loolu la xamle match boobee 17 lay door ñu jugee Corriere dello sport dem mi la fekk fa la Gazzetta dello sport moom it waa yuufe la fësal ca wu njëkk wa